raditu anil mawla ta'ala a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi wa kafaa wa ci télé bu mag bi di MK TV di télé bi nga xam ne mooy télé jumaa yi Tuuba te muy génn lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci jumaa ji moo julli la wala waxtaan yi wala mbooleem loo xam ne aju na ci muy dundal xam-xam ak di yaatal njàngaleem sëriñ bi ni ñu ko baaxoo defe nag di ànd ak yéen ci ay jotaay yoo xam ne dañ ciy waxtaane lu aju ci mbirum sëriñ bi ci yaatal ak xamle ay jaar-jaaram bokk na ci loolu nag mu mel ne am na loo xam ne day jaadu ñu indi ci ay jàngat ak ay yaatal ginnaaw ci njàngaleem sëriñ bi lañuy gëstu lépp loo xam ne taq na ci moom wala mu bokk ci moom rek war nañ cee defaat ay jàngat dañ cee indi ay yaatal ngir leeral ci mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel saasu su ne MK TV di leen sant bu baax it ci topp gi ngeen ñuy topp foo leen mën a nekk di leen wax ne euh, ñu ngi leen ci sant di leen ci bàyyi xel bu baax a baax ay jaar-jaar sëriñ bi nag baax na saasu su ne ñu di ko jàngat waaye bokk na ci ay jaar-jaaram yooyu nag. lépp loo xam ne rek luñ mën a xam ci ay jeexitam ñu indi ci ay jàngat ngir mbokki taalibe yi mën koo xam ci jeexit yooyu nag ku ne xam na ne sëriñ bi néew na lool ci jamono ji ñuy gis koo xam ne mas na koo gis ci jëmmam waaye ay mbindam la gis ak ñoo xam ne mas nañ koo gis waaye yàlla tawféexal ñu nag ba léegi mën naa am ñuy wéy di ko gis ci ay nataal amoon na ab nataal boo xam ne moom lañu xamoon ñu di ko ci xencu mu defoon ay jeexit yu baree baree baree bare ci moom waaye mu dem ba jamono nag ñu gis ne am na ci at mii ay yeneen nataal yoo xam ne génn na ñu gis mbokki taalibe yi pasteef bi nga xam ne am nañ ko ci ndax lépp loo xam ne rek aju na ci sëriñ bi ci lu taq ci moom moo xam ab bindam la walla rax lu ñuy wax ne liy jëmmam la loolu dañ ci xër bu baax a baax a baax ba loolu bi mu jëwee nag am na ay uh, débat yu bari yoo xam ne amoon na ci looloo tax nag ñu indi benn mbokk moo xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu lu mel noonu yi ngir ñu indil ñu ci ay leeral ci lu aju ci nataal yooyu yii kooku nag mooy Serigne Fadilou Mbacké Ridis di kenn ci ndawi dëkk bi di kenn ci euh, ñi nga xam ne ay gëstukat lañ dañuy yaatal njàngaleem sëriñ bi jàngee fii ci dëkk bi ba yàlla dogal mu am fi xam-xam waaye di yaatal xam-xamam tax mu dem ci bitim réew ci France googu yi nga xam ne ci la nataal yi xëy na ci la feeñe mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu lu mel noonu bi mu nataal yi génnee nag eh, amoon na ay wax yu bari am na ñu ci bind ñu baree baree bari ñu def ci ay émission yu bari bañ yàlla dogal ñu agsi fii ñu jot nataal yooyu kon koo xam ne bokkoon na ci processus boobu yi bokkoon na ci yooyu yëpp na participer ci émission yooyu yëpp moom ñu ngi ko àndal xëy na du ñàkk dana ci ñëw moom la ñuy daral tey ngir ñu indil ñu ay réeral ci loolu kon dañuy bañ a guddal rek jox ko mu nuyoo bu ñu mën a daal dugg ci waxtaan woowu yi kon sëñ Ngour Fadal eh, bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain te bis Abdul Ahad ci dalal ku am solo bi ñu ngi nuyu mbokk yi taaliba yi ñuy seetaan yëpp fu ñu mën a nekk ci télé bi di MKTV di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu ak wér ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di ziara bu baax bokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ci weer yi dina ci dokkeel rawatina ci fan yu mujj yi nga xam ne fan yu am solo ci weer ci weeru koor ko waxee rek mu mel ne waxtaan la am solo ci li aju ci jeexitali sëñ bi mm-hmm. ndax bu ñuy waxtaanee safar yi xëy na ab fàttali rek patrimoine li mm-hmm. nga xam ne moom la sëriñ bi mm-hmm. am mu lu am solo loo xam ne nii ma des na ci waxtaan war na ko topp kon incha allahu taala comme ni nga ko waxee ci gën a euh, bi incha allah. Euh, am solo boobu yi euh, ni nga ko waxee rek patrimoine muy loo xam ne lu am solo la mën nañ ko waxtaani bokk na ci waxtaani ren yi sax li mu xaddamatul ma jël waxtaane ban waruwaay lañu am ci sàmm ndonol sëriñ bi sëriñ Sërif Mbàkke moom suñu fàllu nga xam ne ci yooyu lay yëngu xam naa bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ñu ngi doon def yu mel noonu yi te loolu lu yàgg la ci yoonu ñuy fexe bay xenc jaar jaari sëñ bi di xenc jeexitu sëñ bi mu mel ne foto yi nag euh, euh, ci la bokk waaye dama lay laaj Cheikh Amadou Fadal photo ci jëmmam ak débat yu mu juróom yi yëpp euh, lan la mën a saxal ci histoire maanaam njëriñul photo dëgg-dëgg ak loo ñu ci mën a kii balaa ñuy dugg dëgg dëgg dëgg ci waxtaan wi. waaw jërëjëf Sëñ Lahad day mel ne photo daa bokk rek ci jumtukaay yi ñuy saxal yi bu ñu bëggee fexe ba mbir du naaxsaay wala mbir du réer ñu fexe ba photo ko photographie mi ngi ñu ngi ko créé en 1839 français yi ñoo ko créé mhm. bi ñu ko créé nag après ci la ñu fexe ba mu yaatu ci àdduna bi ñu def la ñuy tuddee universalisation de la photographie mhm. euh, loolu bokk ci moyens yi nga xam ne ci wàllu histoire dañ koy jëfandikoo pour saxal wala pour fexe ba mu gis bi nga am événement wala lu am solo loolu rek nga bañ nga bañ ak fàtte am ci wala ngay bëgg ñu koy fàttaliku ñu koy photographie mm-hmm. mu mel ni lu am solo la ndax boo xoolee ci wàllu histoire mbir na ñoo xam da nga leen di dégg xamoo leen waaye seen foto dina tax nga mën a am am xel maanaam nga mën a imaginer hmm. wala nga mën a xalaat ni kon ñi lañu meloon hmm. maanaam kon foto lu am solo loo xam ne nii day tax mbir nax saay hmm. waaye itam day tax mbir sax ba faw nga xam ne ba ëpp nay tukki dinañu mën gis ne nit kii que nekk ko amoon la nekk te fii la doon dund nekk te ñii la loolu njëriñu foto la bi ko tubaab yi teree ci nit dañoo ne ci adduna bi nga xam ni moo waral euh, bokk na ci métier yi ñu nga xam ne dañ dañ koy jàngale ci seen école am ci ay domaines yoo xam ne nii ñu ko ci spécialisé. Hmm. am na ay yoo xam ne loolu rek mooy seen métier. Hmm. ngir am gum am solo. ak nekk gum nekk wasila maanaam mooy buy permettre ñi nga xam ne ñooy gëstu ñu mën a saxal ñu mën a saxal seen histoire waaye tamit ñu mën a fexe ba lépp loo xam ne ni amoon na muy événement ñu mën cee jaar ba pérenniser ko maanaam fexe ba événement boobu sax ba faaw kon lu am solo loo xam ne nii. Euh, bi ñu ko tegee ba léegi nii day continuer di am engrais am na ay gën naa gën naa développé mm-hmm. avec les nouvelles technologies mm-hmm. photo gën naa avancé mm-hmm. euh, loolu dañ ñëw ci waxtaan bi photo yi ñu am jamono ji wute na loolu li ko waral rek mooy am na ay ay développement yu ci am solo waaye ba léegi nii day continuer am te itam solo si jàpp naa ne ñëpp ko xam jërëjëf Cheikh Amadou Fadel mel na leeral nga historique photo ak création bi ak évolution yi mu am te solo si mu am yaakaar naa euh, day tax mu xam ne jaroon naa waxtaane ndax bu doon euh, photo yaakaar naa ñu bëree baree bëri ci muriti jamono ji duñ xam ni sëñ bi mel te boo gisee photo bi da nga koy gën a bëgg ba photo bi feeñ na ci bu baax a baax a baax waaye li nga ko waxee tamit photo ci français yi ñoo ko njëkk a créé loolu yàlla dogal na ba mel ne photo bi euh, ci France googu la feeñee damay may ma laaj rek maanaam photo yi ci la feeñee ak kooku mooy kan kañ la feeñ mm-hmm. euh, ak yooyu waaw jërëjëf euh, photo yi ñu ngi feeñ ci atum 2020 mm-hmm. boobu ñu ngi nekk ci jamono covid mm-hmm. nga xam ne dañoo defoon confinement tëj ñëpp seen i nga xam ne jamono jamono da xawoon a metti euh, photo yi ki ko publier ñu ngi tudd Mathieu Rob Mathieu tudd Roblan mooy santam ñu ngi dëkk ci côté Lyon ñu ngi ko dugal ci benn site bi del camp site bi site de vente en ligne la maanaam mhm. site la boo xam ne nii da ngay ñëw dugal sa benn dara mhm. vente au chancel la maanaam site la boo xam ne ku ëppale loo fay rek mhm. yow yaa koy yaa jël lañ koy jaay moom nag ba fa dugalee photo yi xamatoon dëgg-dëgg valeur photo yi da ko dugaloon ci bi wax nañ ne prix de mise bi maanaam prix de base bi commencé woon mm-hmm. cinq euros la woon mm-hmm. maanaam cinq euros mm-hmm. site boobu muy Delcamp est-ce que site la boo xam ne bu kii la bu bu am doole la boo xam ne ni bu fiable la di bu dee ci wàllu jënd ak am na ñu koy jënd am na jaay seen dënk bu ñëpp xam euh, ci ci surtout ñi nga xam dañuy jëfandikoo wala dañuy faral di utiliser banque transfert euh, da leen fa dugalee war na war na faa des vingt et un jours la waroon def processus bi expiré wu mhm. avant muy mat mhm. ci la ko yenn ci ay murid bis mhm. commencé ko partagé maa ngi wax léegi ne prix bi mu ko doon jaayee ci digg ba mu nekkoon cinq euros ginnaaw bu ko yenn murid yi gisee nag di commencé ko publier loolu am moo indi benn débat bi nga doon dund léegi ñu produit bi ci amoon ñi naan moom laa ñi naan du moom cinq euros mooy ñaata gisee fa euros xam naa buñ ko doon xayma mooy nekk trois mille trois mille kon kon kon séerutoon nekk na mu cher ci suñuy koppaaram mooy trois mille bi ko murid yooyu gisee nag ci lañ ko mmh. partagé ñu mmh. commencé ci débat ñi naan moom laa ñi naan du moom ñi naan sëñ bi la ñi naan du sëñ bi mmh. loola tax na ba murid ñu bëri wala en tout cas nit ñu bëri dem ci site bi di enchère yi maanaam fexe ñoom it di jënd loola montel prix bi di bi kon jóge cinq euros di yéeg di yéeg ba àgg quarante deux mille euros muy différence rëy ñaata ci CFA quarante deux mille bi ñu ko xool mooy ay mooy vingt mille millions di mu àggee foofu nag moom mi nga xam ne moo fa dugal daal di xaw a tiit mhm. daal di tiit daal di retiré photo yi mhm. Mhm. wax kan la mooy mën nañoo wax ne ñu ñuy tuddee brocanteur la brocanteur mooy nga xam ne dañuy def ay collection dañuy def ay collection ci ay objet daar yu yàgg wala ay ay yu yàgg ay objet d'art yu yàgg ñoom loolu mooy seen liggéey seen liggéey daal mooy dem ci foire yi di xool ay photo wala ay objet d'art yu yàgg di ko jënd di ko collectionné di ko jaayaat. Mm-hmm. loolu métier mu dox a dox la France am na ñoo xam ne nii loolu rek moo sa liggéey. Mm-hmm. Euh, dañuy dem ci barab yu mel noonu. Mm-hmm. ngir di fa jël ay tableau. wala di fa jël ay photo wala di fa jël ay objet d'art yu yàgg yoo xam ne nii day euh, day ba tey ay mille huit cent wala mille sept cent. ñoom bu ko amee danañ ko jaayaat loolu métier la moo xam ne nii ci réewu tubaab yi. dañ koy dañ koy def. moom brocanteur la. bi mu amee photo yi nag photo yi xam nañ ne da koo fekk ci benn album mhm. album bi loolu damay campé débat bi ci mhm. photo yi mhm. origine dëgg yooyu photo yi ku ñu naan Jean Job moo ko moomoon di benn architecte boo xam ne nii ku ñu xam la euh, ku ñu xam la ndax moo nekkoon architecte bu mosquée bu Njaaréem moo nekk architecte bi. mais en plus os bi ne moo nekk bi. am na ay photos yu bëri kon jëmmi borom album bi. Hmm. architecte la woon. architecte ah, day tax ñu xam dëgg-dëgg. waaw moom jëmmi borom album hmm. kon yal na maanaam photo sëñ bi. Ah, absolument hmm. bi. i photo mu nekk yeneen i chantier. ndax ko amoon ay chantier la ci

amoon na photo yu bëri da ca nekk ay photo mm-hmm. mën nañoo xam na sans photo mm-hmm. kon du photo yoo xam ne ñu kii la mm-hmm. donc foofu li mu jugee ci archive archive française jugee nit ba tom ba tob ba tob ba tabbi ci loxoy brocanteur ma lay wax mu màcce moom nga xam ne nag moo doon tay photo yi kon photo yi foofu la foofu la jugee euh, comme ni waxee léegi muy ñu indi woon débat. bu yaatu boo xam ne nii. <laughs> Mhm. Eh, am na histoire. Mhm, mhm. ñu naan sëñ bi leneen ñu naan sëñ bi ku ci ne xëy na am na foo ko tegoon. waaye ñun yàlla dogal na booba booba nag ñun ci dañ ci engagé wu. ànd ko yeneen mbokki taalibe yoo xam ne nii ñoom ñëpp itam benn yitte lañ ci amoon. muy jot ci photo yi wóorlu ko. waaw ah, ndax tubaab moom. doo su ko wóorul. surtout kii mel noonu. li ci nit ñi doon ragal yëpp itam. ñun xam nañ ko. ñu ci ragal. ndax ku nga xamante ne diggante seen bi mhm. mhm. Mhm. naa ne bu seen i pexe am kon lépp lu jóge ci ñoom waaye waaye foofu xanaa pour préciser rek ne xëy na colonisation française bi ñoo noonu woon sañ bi Mhm. waaye architecte bi moom doon noonu sëñ bi kii mhm. album bi photo bi jógee pour mën a mhm. leeral mbokki taalibe yi ne nit daa jóge rek ci n'importe kii ci bi nga xam ne mooy autorité française yi nga xam ne ñoo exilé woon sëñ bi ñoo ko bi lambda français bi nga xam ne moom ak citoyen simple moom yoo dam newul nangu naa liggéey jumaa njaareem ji loolu dafa mën a leeral itam moom comme ni ko moo nekkoon architecte maanaam mosquée Ndiarème ni mu ko inspiré woo ci mosquée bleu bu nekk turki mm, mm, waaw muy architecture loolu day wane rek sëñ bi ak mm, tuddee comme ça su demee ba mën a engagé tubaab mm-hmm. ngir inspiré wu ci mosquée mhm. bu la nekk Turquie ngir gën a xam jërëjëf loolu loolu leer na kon kon kon li mu doon leeral rek mooy wane ne mhm. photo yi kon jógewul ci nit ñi bañ tiit ne mhm. euh, archive nationale française nga xam ne dañuy bind lu leen neexee na lu leen arrangé ci sëñ bi waaye ki ko ci ki mu jógee album ki ko moom kooku du woon noonu sëñ bi waaye moom moo doon liggéey architecte jumaa Njaaréem te ku te te ci jamono jii rek moom mii bu amoon ab santé wala dara lu muy def mm-hmm. dana ko photo pour mën koo def archive mm-hmm. pour mën koo denc itam loolu dama la wax mooy am lu am solo mooy mm-hmm. photo bi ki ko photo du professionnel maanaam amateur la du wax mooy koo xam ne photo bi mu ci am loolu ngay wane ne ba léegi ay na moom daa yëg rek ne événement bi te lu am solo la moom muy appareil photo am moom mu ñëw fekk suñ bi taxaw am ànd ak mbooloo moo xam ne moom dafa war a dem tabat pose première pierre mu ngi tombé ak pose première pierre bu mosquée Ndiarème Pierre Moussa mhm. di ñi di 11 mars 1918. Mhm. donc moom mu ñëw. événement la mhm. te loolu li koy dëggal mooy am na yeneen photo yoo xam ne. luy marqué euh, parcours sans œuvre moom la. léegi kon beneen laaj bi xëy na mooy. léegi nan lañ def ba jot ci photo yi ginnaaw bi mu génnee ak ci yan loxo la jaar ak ñaata lañ ko jëndee. historique photo yi. Mhm. wala bu da nga bëgg ñu. Mhm. mujj ko. Mhm. Euh, photo yi. comme ni ko waxee woon léegi. mën ngaa ñëw ci historique bi ba pare. maanaam liy saxal photo yi. comme na mu indi polémique. waaw waaw waaw loolu da xanaa mooy bu ñu ko doon tënk mooy yan nattukaay la ñu mën a xamee ne photo bii sëriñ bi la ginnaaw xëy na yow man naa am eh, tiim nga photo yi sax bu ko defee loolu dana gën a mën a wëral eh, wëral mbir mi. waaw léegi nattukaay yi am na ci ñaar ba ñetti ak historiquement. ci li li li sangi murid yi wax. bindikati murid yi comme si Lamine Jóob Dagana ak yu mel noonu mm-hmm. bu ko defee yan nattukaay lañ mën a jàpp ne ba jëloon nit sàkk ñu xam ne lii kat photo yi bi la lan mooy dëgëral ne bi la day mel ne loolu xëy moo sax mu ëpp solo ci waxtaan yi ndax ñu génnee comme ni ko ne moom la ñi du moom ku ci ne xëy na nekkul foo teg la ngay wax waaye ginnaaw bi loolu amee nag dañoo def ay jàngat def benn étude yoo xam ne nii diwaanu maaris ñoom ñoo ko piloté muy étude bu am solo boo xam ne nii dañ cee wane firndeel indi li ñuy tuddee ay éléments historiques comparé ko ak li nga xam ne moo nekk ci photo bi mu mel ne li ci gën a dëgër muy photo bi ñu ngi ko jël ci datu mars loolu la nga xam ne mooy architecte bi bind ci album bi boo xam naa léegi ne album bi ab architecte bi ko moom am na yeneen i photo yoo xam ne mi ngi biir am na sax euh, code carte postale boo xam ne mi ngi ci photo yi am tamponné am lépp rek lu wane ne moom nit ñëpp ko am koo xam ne nii wax ay jaar ci wàllu yeneen chantier yu amul Sénégal lu mel nekk Dakar ak yeneen photo yu mu ànd ak moom ak ay xaritam ak ay doomam ak xam ne nii doon na liggéey amoon na ay fonction Dakar moom la sëñ bi engagé woon ngir mu nekk architecte bi nga xam ne mooy tabax mosquée Ndiarème mm-hmm. moom moo bind ci photo bi 11 mm-hmm. mars 1918 mm-hmm. bind ci suuf la la Serigne Amadou Bamba bi ñu jëlee loolu nag ñu comparé ko ak téere yi histoire yoonu murit yi nga xam ne ñooy nettali lu aju ci jumaay Ndiarème tabax wi mu mel ne ki ci gën a xam muy Cheikh Mouhamed Amin Diop Dagana hmm. ci Irwa Unadim moom mu indi ci en détail hmm. wax ne sëriñ bi mi ngi comment mi ngi sos mosquée bi ci 1917 en tout cas ci dëkku rëdd gas mi mën na ñaar mën na at te atum 1918 mel ne moom dafa indi euh, ci date bi jumaa def taaniya hmm. mu mel ne nag loolu xëy na en tout cas jumaa de Tanweer ak jumaa de Ula foofu mu am tuuti ci wàllu wuute mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. bu dee ci wàllu dat waaye ci junni ñu jël d'accord nañ ci la foofu na lu am solo muy yeneen i borom xam itam wax nañ ci ñu ne suñu moto xëy xëy jaxate xëy jaxate xam xam-xam la gëstu la yoonu murid yoo xam ne demoon ñu bëri ñoo xam nañ loola ci mel ne Cheikh Modou Amine ni ñeneen moom source bu mu doxee mooy mu ngi nekkoon demande ula maanaam tolloog 11 mars 1918. Mhm. di dëppoo ak date bi nga xam ne moo nekk ci album bi. Mhm. kon loolu mhm. seulement day mën a gën a maanaam. kon day mel ni 27 jumaadal ula 11 mars 1918 day déppoon. te itam li gën a am solo mooy il faut ñu xam ne aussi mag ñi di ñaan bind. ci atum arabe lañ daan bind. dëgg la ak donte bu ñu ko confectionné sax dinañ am date bi exact. Mhm, mhm, mhm. waaye nag bu ñu précision ci wàllu date. mën naa ko date bii la woon algérie woon. ñoom loolu fomp yi ñu ko woon. fomp nga ko toll. loolu tamit xëy na. même ci waa damay gis sëñ bi da di mm-hmm. bàyyi loo xel nit mm-hmm. mm-hmm. la boo xam ne ko bi irwaa na def vingt-sept jumaa de saani la def kon mën am jumaa de saani ulaa gi mën naa am sax waaw kii waaw waaw muy a bind ulaa sax far waaw waaw loolu mën naa am na ko loolu yi yi dafa jël événement bi yëpp. Mhm. ni mu ko ni mu ko bindee moom ci téere bi noonu la ko photo yi jëlee. Mhm. maanaam sëñ bi ñëw na. Mhm. taxaw. daal di julli ñaari rakka. comme ni ko baaxoo def fu màngal day julli loolu moom ñëpp xam nañ ko sëñ bi ñu julli ñaari rakka loolu photo yi génn na ko. ñu ñëw daal di jël kii prière bi ubbi ci ciment bi daal di dóor aw xeer. loolu lépp ñu ngi photo yi. Cheikh Mokhtar bi Diop moo ko doon jàppale. lépp boo gis photo yi da gis. Mm-hmm. ñoo xam ne nii dañuy jàpp ne. Mm-hmm. ñii mën na am kii mën na am moom la. Mm-hmm. kon loolu lépp day dëppoo. ak ni ko ni ñu ko décrire moom. ci téere bi. xam ne amul benn lu ci différence waaw mu nekk juróom benni photo yoo xam ne. lu ci ne rek mën ngaa woon ab étape la ci événement bi. suñ bi ñëwee suñu jullee ñu ngi yi. suñu sëggee di pose première di pose euh, xeer technique tubaab bi taxaw ci wetam. ñu gis ko ñu jël ko photo moom ko mu leer nañu. loolu loolu lépp muy juróom benn photo kon loolu élément historique yi la day war a ne photo bi moom. historiquement dëppoo na ak li nga xam ne moo nekk ci téere bi ci wewu nag kon loolu tool histoire jàpp nañ ne loolu mën naa dal xel ndax dëppoo googu moom mënut a am ci ñu invente waaw waaw nit mënut a loo xam ne xamoo ko fekkoo ko mm-hmm. Mm-hmm. nga ko mm-hmm. mu dëppoo noonu loolu te bokkul ñu ko bind xam nga waaw te bokkul ñu ko bind def te jam événement bu mel noonu it amusoon mille neuf cent dix-huit boobu boobu def naa loolu tam ñu ko ñaari ba ci wàllu science photo yi xëy na dinañ ñëw sax ci ni ñu waaye ma leeral foofu ma anticipé ci rek ba tey ci da koy ñu dëggal sëñ cabine bi nga xam ne cabine bi nga xam ne moom bokk na ci gën a mag ci adduna mhm. foofu ma profité leeral que ne mhm. li ñuy tuddee photographie du lu yomb mhm. maanaam spécialité bu jafe la ñi ñu ko doon liggéeyal wax nañu ci lu leer que ne expert en photographie amul Afrique amul Asie Europe la am ak Amérique te bëri Europe France la am ak Amérique. Mhm. bu dee Angleterre ñoom ñu. defoon mu xereñ. kon métier la mu xam ne. Mhm. métier mu jafe la. Mhm. métier la mu laaj dëgg-dëgg. dëgg-dëgg technique. moom bi ñu ko joxee photo yi comme expertise ko. li ñu wax mooy photo yi. jamono jii photo yi moo amoon. maanaam këyit bi ñu ko def. këyit boobu argenté la tudd. argenté mooy photo bi. dañ ko jël sotti ko moo tax mu mel ne lu lu. bu xaw a mhm. mokk noonu mhm. jamono ci bët papier boobu moo am mhm. papier bi ci boppam bu ñu bi photo yi nekk day dëggal ne photo yi ci date ci année ci année yooyu la muy mille neuf cent dix loolu preuve scientifique mu teg mu teg ci tamit ne photo bi bu ma ko expertiser gis naa ne photo la bu ñu photo direct ci appareil maanaam du copie du photo bu ñu fotowaat mm, mm, mm, waaw bu doon photo bu ñu fotowaat la moom dina ko mën a xam waaye beneen photo bi photo bu ñu photo direct la ci ci photographie après ñu ñu intégré ginnaaw bi ngeen jotee photo original ngeen ngeen jox ngeen def yooyu d'accord c'est important nga xam ne mën nañu original boo ko xam boo ko yoree bu ñu ko expertisé xam naa ne bii la waaj yoroon loxoom te itam bii nii du photo bu ñu photo waat maanaam du copie daal mm-hmm, mm-hmm. waxuma laa nag muy nettam dessin loolu moom mun mm-hmm, nekk nekk loolu moom amul benn possibilité bu mën a nekk maanaam kon nattukaay boobu de moom moom parce que dañ ci demee nag ak demee wuñ ci rek ak yëg-yëg ak xam-xam bëgg li ñuy lépp lu ñuy saxal seen bëri rek. ñu wóor ñu ne mm-hmm. Mm-hmm. moom. moom dëgg la mm-hmm. waaw mu ngi day day day romb cadre. Euh, yëpp yëpp. ak cadre la ko jox. ñun dañu am ay preuve. boobu moom historique yi wane sëñ Tuubaa surtout boo ko jotee daal xam nañ ne papier bi sotti wuñ ko daal li ñaan sotti fa maanaam jëmmi papier

Euh, jëmmi photo bi moom kenn photo la bu photo boo xam ne nii. Mhm. Euh, bu authentique la. Mhm. ñaareel ko tam amul benn possibilité mu am lu ñu tuddee trafic. Mhm. maanaam amul benn possibilité photo yi ñu dessiné ñu dessiné ko wala ñu laal ci dara maanaam kenn leelu dara dara dara ci photo yi. maanaam na mu meloon bañ ko jëlee ci atum 1918 noonu la photo yi mel ba mu jotee. loolu tamit beneen beneen élément la. amaatul retouche daal. amaatul retouche. kenn daal ko kenn dugal ko ci machine amul lenn loo xam ne nii rek mën nañ cee mën nañ cee wax loolu. lépp luy dalal xel ci wàllu googu moom. loolu am na ñaareel itam mooy ñetteel bi tey mhm. mhm. muy ci jamono yooya. Mhm. loolu logique la. jamono yooya. kan lañ xamoon Sénégal. surtout borom dama tombe bi nga seen benn magasin bi doog a jeex mm-hmm, mm-hmm. jirib espagnol bi mm-hmm. crise kan moo amoon jamono jooja capacité bi mën a tabax jumaa ci sëriñ moom question la mooy laaj ñi nga xam ne na ñoo am ay xalaat yi mel noonu toujours ci nattukaay est-ce que def nga ne euh, comparaison entre photo bi ak première photo bi bi mu amoon ba tey bu ñu jëlee photo bi ak photo bee ñu comparé ko dañuy gis ne oto boobu comme naa Paul Martin kañ la woon. xam nañ ñu ngi ko Paul Martin moom projet bi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. wax nañu dañ jaaroon la ci atum bi. diggante bi cinq ans la doon. cinq ans la doon muy dix huit ak treize mooy photo Paul Martin bi. photo Paul Martin bi nga xam ne. Ah, a parce que da koo fekk archi ñu gis ne ni mu def na sëñ bi la rek wala ñu bind ci turam te archi bi mu foto waat bind ko si Abdou Lahad da koo sotti moom ñu indi mhm. wax na ñii si Abdou Lahad am na chance ñu ko wan mhm. koo xam ne nii mhm. euh, amoon na sëñ bi boo ko gisee am ñu soxna Fat Jaxate la soppeeku boobu moo dëggal ne foto bi am na kon bu dee ci wàllu science histoire moom bërëb yi am mm-hmm, mm-hmm. Ah, mm-hmm, foofu dana may xëy na ma ma ma commentaire ci xam naa yow yaa gën a xam loolu. Mm. muy xëy na jàllaaj bi ñaan sëñ bi couleur bu mu sol waa ji leeral na ne kon di jëmmi mm. euh, papier argenté la xaw ma moom moo tax mu mel noonu. Uh-huh. Uh-huh. kon ñuy wax naan ay sëñ bi daawul sol mbubb mu weexut ak yooyu loolu mën naa am du ci euh, du ci couleur sëñ bi waaye ci couleur jëmmi tibb papier bi la waa ñu ndax benn mu ñu yooyu mhm. loolu moom mhm. jàpp naa di mhm. ko ko da daa saxoo muñ li ko fi Moussa ko waxee kon loolu day wàññi fi ñu daan muñ te itam si sàkk amul ci sëñ bi daan na sol di marachis di marachis yoo benn xeetu archive boo xam ne mhm. ñoo xam ne ay ay la mhm. mhm. ñu woon bi. suñu daal di toog gis nga loolu day wane continue moom ci lu wér daan na. boobu de papier boobu liñ bind fii muy le Amadou Bamba ñoom dañ daan loolu tamit nga ca écriture bi ci jëmm bu dee yow gis nga ko ñoom liñ daan bind noonu lañ ko daan woowee ñoom. appellation bi benn tey mooy mhm. Serigne Amadou Bamba. Mhm. Bamba di ko kenn woowee. Mhm. donc loolu loolu moom lu ko kii la. ñaareel ba mooy li nga wax léegi bu ñu comparé ñaar yi. dinañu gis ne jëmm ji ak jëmm ji benn la. benn la waaw te xar kanam bi parce que ñun dañ ko niroo na moom niroo gi moom ëpp na. waaw ñu ko jël dugal ko ay laboratoire ñu indi ñu haute définition maanaam photo yi boo ko dugal ci laboratoire. ba ñu wan la dëgg dëgg ba ñu suñu suñu photo yi. da nga xam ne dëgg dëgg. haute définition mooy li xew léegi ci technologie nga xam ne dëgg dëgg image la lay indil moom la ñuy HD ah def ngeen ci loolu asma maanaam toujours ci comparaison boobu mu mel ne type bi jàllaat bi moom benn daal ni mu daan sëñ bi wax na mu mhm. fa nekkee. dama daan jullee suuf la woon. ba mhm. suñ ko def. Mhm. loolu tey jii rek amoon naa ci confirmation. ci benn kii bi waxal boo loolu. loolu ngi foto bi. mel ne sax ku ñu lalal kaala. am na tey ba tey buñ ci liggéeyee nga gis benn fil boo xam ne. ci nattee ci nattee fondement bi wala xibla bi. fondement bi. Mhm. film boobu ko gis ci photo bi. ah ah. waaw xam du lu kenn mën a maanaam. waaw loolu lu kenn ndax ak ba ci ba ci détails yooyu da koy jënd. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. ne. ci lañ doon nattee. Euh, kii bi yëpp euh, kooku ak yooyu da ko gis. ci ko sol ay daal moom rek moo ko am ñëw da doon julli mel ni te xam ne da doon naafile du jot. mu ngi bokk ndax suñu mën la mën jóg daga na loolu la nekk julli na fa ñaari rakka ca yor yor yooyu de yooyu lay doon. wegal googu moom ku ma newoon ci jamono yi mag ne. maa ngi koy posé ba léegi ñi nga xam kii kon pour njëkkante waxtu bi rek euh, nattukaay yi ngeen am ci analyse. ak comparaison yi ngeen def ñaar yëpp day saxal ne. photo bi sëriñ bi la ci historique ci histoire ak ci science. léegi léegi kon beneen question bi mooy nan ngeen def ba jot ci photo yi. ak ci yan loxo la jaar ak ñaar ngeen ko jëndee photo yi. waaw photo yi ginnaaw bi nga xamee ne nag dama ñëwaat ci point bu njëkk ba. Mhm. mooy ginnaaw bu ko bu ko dugalee ci loolu. Mhm. jënd colonie yi mhm. ba mu ci retiré photo yi. topp nañ ci nag. waaw dañoo créé benn collectif. boo xam ne nii bëri na ci ay mbokk taalibe ci ay chef d'entreprise. ci ay médecin ay ay ay ay hommes d'affaires ñëpp ci bokk. ay borom ay chef ay chef ñëpp ci bokk. récolte bi ñii ay études. Mm-hmm. mooy ñoo tuddee jël maarif. ñii di jokkoo ak Mathieu. directement. Mm-hmm. Mm-hmm. di wax ak moom. avec implication aussi ambassade bu Sénégal. ambassadeur bi aussi. moom it mu impliqué wu ci processus bi. ñu topp waa ji di waxtaan ak moom ngir déglu ko ci photo yi. topp nañ ci mën nañoo wax ne ñetti at. ren maanaam deux mille vingt deux mille vingt trois. Binal moom da koo jox benn cabinet cabinet boo xam ni ñoom ay expert lañu ci wàllum banque de chancel loolu moo seen liggéey mhm. muy cabinet bu tudd Dabek bu nekk Lyon mhm. ñoom la ko dénk Dabek a jeex yooyu kamaar yeneen kii la mhm. ñoom ñoom la ko dénk ñoom cabinet la bu fiable boo xam ne du ñu jaay dara loo xam ne nii wóor la wuñ ko ba mu lay doon lii wër la ndax bu dee ci législation française moom. Mhm. dafa am ay yu tar. yu mhm. contrebande la wala contrefaçon. waaw contrefaçon la. Mhm. xam nañ ne. lu lu lu loi bi aaye nag ci aaye leen bu tar. donc entreprise bi ko jaay rek day dëggal ni kon photo bi lu authentique la. bu bu la waaye itam bu. bu fiable la. Mhm. boo xam ne ñoom bu ñu jël mukk risque. Mhm. te bu sérieux la ci bu sérieux la boo xam ne bu mhm. jël mukk risque. jaay loo xam ne du wërtu. loolu boo xam ne nii dañ ciy bind loolu. bu ñu na ko. waxtaan ak moom ci bëgg mu jaay ñu ko. ci anam gu yomb. moom mu lànk. di wax ay prix yeneen. Mhm. man bi ma jokkoo ak moom. Mhm. ci ndigalu collectif bi. Mhm. damaa waxoon ni ma bu ngeen ma fayee cent quarante mille euros délai. mais boobu mooy ci jamono bi ñu dara woon. ginnaaw bi nag toogaat nañ ba ñetti at. mu mu doog ko dugal mu doog ko jox cabinet boobu cabinet boobu nag ñoom ñoo ko géré. Hmm. ñun boobu lañ gis hmm. da ko daa gaaw daw. yooyu ci doon waaw ndax xëy na hmm. ragal ay yu mel noonu. gis na am na moom mu ngi. wóorutoon aussi waaw mooy loolu sax dafa yi boobu amoon ci mmh. Mmh. cabinet bi ñoom mmh. mooy date boobu may wax ñoom ñoo publié date bi di ko jaay le 8 mars 2023 2023 date bi loolu nga mën cee participé da ngaa waroon a defee dañoo war a defee caution cinq mille euros maanaam muy toll ci trois millions deux cent trois mille trois cent léegi ginnaaw bi nag. moom ñu ngi tax cabinet bi cabinet pour nga rek nga mën a bokk. bokk rek essentiel prix mhm. demee yomb na mhm. maanaam mhm. damay ñëw fay prix ku ëppal lu fay moo ko jël waaye bii nag te dam doon bii lañ doon jaay ci bis boobu am na yeneen bii moo nekkoon lu 93 lu 93 ak lu 94 lu 93 moo nekkoon 6 côté sëriñ bi loolu 94 bi nag moo nekkoon album bi ci boppam. ñun mm-hmm. ñaari buñ jël. ngir a. mu gën a wér nga nga comparé yëpp. waaw ngi gën a comparé ñu ngi gën a photo yi. Mm-hmm. Mm-hmm. gëstu bi uh-huh. ginnaaw boo nga xamee nag postulé nañu ci kii boobu ndox mel nit ñaan docteur Xarim Ngom. mu nekk bëgg ko jàmbaara ci liggéey bi. moom moo postulé ci suñu tur. bi. ci bisu vendredi bi am na yeneen i kilifa yu doon postulé en même temps mhm. Mhm. waaye bi ñu ko yëgee danañ ko wax mhm. ne leen daal am na benn projet bu ñu dugg loo xam ne ni li ko tax a jóg mooy jot ci fate yi ñu xamee ko noonu daal di d' accord ci principe boobu ànd ànd ñun ànd ko ñun waaw ku ne nekk suñu Moussa nga xam ne moom du suñu Cheikh am na ku naan Laurent Benoît benn xaritam boo xam ne nii moom la waxoon mu postulé mais bu ñu ko waxee loolu rek dafa wax mu bàyyi ci bis bi kon ñu dem postulé cinq mille euros daal di daal di bokk ci bi ñëwee bi loo bi ko jëndee quarante huit mille mu nekk douze mille euros boo ko boolee mu def la soixante la ñu jëndee oto yi ñaata ci CFA muy tolloog daanaka quarante ñoo nekkoon prix xëy na prix bi sax ñun dañuy mm-hmm. dem suñu ëpp bi mooy moo ne lu mu mën a def rek mm-hmm. nañ ko jënd suñu mm-hmm. prix jar na ko ñu patrimoine la boo xam ne c'est inestimable na kenn mënu ko takk ci xaalis amul fenn waaw bu demoon ba un million d'euros sax jar na ko jar na ko sax ah, jar na ko kon wàllu jëndin loolu lañ ko jëndee ginnaaw ko jënd tamit dafa yeneen liggéey euh, àdduna bokk na ci liggéey yi ñu wax léegi muy fexe ba restauré photo yi ba mu gën a leer dafay dama photo yi ñu doon ko condition de conservation mhm. ndax photo yu mel nii mhm. naaj da ko yàq mhm. bu ko nit dee laal loxoom dafay bàyyi ay ay microbe yoo xam ne nit bu yàggee di yàq photo bi original bi daal dañ koy garder moo dañ koy jël yi ñu tuddee muy ay cabinet yi mbokk ci cabinet yu gën a mag ci France ñoom ñu defal ñu restauration bi ba nga xam ne photo yi dindi nañ lépp loo xam ne la woon photo bi ndax ko ji da ko jëloon collé ko ci pour ñu bind ko. Mhm. dañ leen ci lu mat une semaine. lu mhm. mu nekk ci waaw mhm. ah, xam ne la. loolu de dëggal na photo yi kenn mosu koo laal dindi mm-hmm. col bi ngir mm-hmm. col bi mm-hmm. bu yàggee day dem ba xam ne lëndëm lëndëm ngay di yàqu loolu ñu def ay ay mesures yu am solo xata ba expert yi defal ñu ko ba nga xam ne léegi fa dem moom léegi kenn mënu ko laal loxo waaye tamit dara mënut ko yàq maanaam léegi condition de conservation yi moom fexe nga respecté ko dañu bi leen di rapport dañu ko war a jëntee ak photo yi naka la ñuy mën a ba du yàqoot ci lépp loo xam ne lépp luy mesure daal de mhm. conservation mhm. ñu jël ko ba photo yi moom mhm. incha allah a yàq macha allah loolu am na solo lool kon day wane rek liggéey bu rafet bi nga xam ne euh, collectif boobu ñoo ko def surtout nag ak étude bi nga xam ne waa diwaanul maarif ànd ko bay si ñëpp la si majaalis ak suñ ñeneen ñi suñ seen naawar ñoom ñëpp rek ak yéen ñi ñëpp jàppoon ci liggéey boobu nga xam ne kon boo ko dégg wax wax dëgg yàlla yéen ñaan yow yaa jàpp ci mbir mi jër hmm. warutata am benn sikk sàkk ci loolu waaye yaa jàpp ci lu yaa jàpp ci jaag bi te yéen amul amulu leen njariñ ngeen wax loo xam ne euh, da ngeen koy moomale sëñ bi te du sëñ bi ah, waaw mi nga wax ñoom mu leen ko kon loolu da kon loolu am na am na ci solo loolu léegi ginnaaw bi ngeen jotee ci photo yeeg loolu lépp nag léegi lan mooy beneen liggéey bi ci topp ah, mosuñu cee benn sentiment. maanaam lépp rek dañ koy def xam-xam. wér boo xam ne nii. ndax dañ ñoo gëm ne moom. lépp luy ñoŋal yoon bi. loolu lañ cee ñëw dafay ci loolu moom. wér na loo xam ne nii amul ci ay ay situation mm-hmm, mm-hmm. kon perspective mooy mm-hmm. comme jëm nañ ci photo yi te liggéey nañ ci ba nga xam ne condition yi mu laaj yëpp ci wàllu conservation ba mu yàqooti fexe nañ ci nit ba def ko li ñu tuddee haute définition ba nga xam ne photo yi te ñu dugg gën ko ci musée yi yëpp ay photo yoo xam ne nii buñ ko bëggoon dugal ci musée wala lépp mhm. mhm. defar nañ ko mhm. loolu lépp nag li ñu war a jël jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne mooy kilifa yoonu murit moom mooy xool nu mu nu mu koy nu mu koy defar waaye daal principe de départ moo nekkoon jot ci photo yi ñoŋoor ko dem ñoom ñu jëbal ko sëñ bi mbaa du mbaa danañ fexe ba toujours ñuy jot ñuy garder original yi moom wala loolu daal loolu tamit liggéey bi defar photo yi lépp rek original bi dañ jël def ay scan mhm. defaraat yeneen yu rafet yoo mhm. xam ne nii mhm. mënees na ko exposé mënees na ko def ci ay musée mënees na ko ci ay salle loolu lépp préparé nañ ko ba nekk nag garde original yi nga xam ne mooy photo yi nga xam ne moom lañ jënd yëpp nag la ñu boole ñu war a boole jibab càmm ci àll suba incha allah incha allah su ko defee moom niñ ko xamee ci wàllu xam-xam dañ ko xamee ci wàllu xam valeur patrimoine mhm. jàpp nañ ne mhm. la ca war lépp dana ko def te ñun xam nañ ne moom mhm. loolu moom mbirama kon daal ñu fab la woon ñun ci dañ ci dañ ci amoon solo mooy suñu mission mën na ca mën nga wax jot nañ ci photo yi liggéey nañ ci ba nga xam ne amatul benn luñ ci sikk sàkk ci wàllu xam-xam ne photo yi sëñ bi la fexe nañ ci ba ñoŋal ko ba nga xam ne fan dootu jàppooti léegi li ci des nag mooy jëbal ko sëñ bi moom mu xool lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci bëgg hmm, macha allah loolu leer na loolu te am solo mel na ne Euh, sëñ bi bu ci jotee yaakaar naa lépp lu war dana ko ci def li nga doon waxee mooy mm-hmm. euh, day fàttali bu baax rek ñi fi teexaloon sëñ bi yëpp lu ñu fi jaar lu mel ne bayti mm-hmm. biir ñangal loolu kàggu daaray kaamil yooyu yëpp ngir ñangaloon mm-hmm. euh, yëfi sëriñ bi la ndax ay mbiram moom day mel ne ni suñ borom waxee ne ñu ñooy wattu alxuraan moom itam yàlla moom mooy wattu ay mbiram kon liggéey bi am na solo lool xanaa kàddu gu mujj gi rek bu ko defee loo xam ne war nga koo wax wala war nga koo jottali comme message wala dara. waaw ko waxee rek sëñ bi moom lépp si moom la ko ñoŋal. Mhm. te itam mu ñaan mu ñaan ko. Mhm. aw bayt boo xam ne nii. Mhm. ñu ngi ci wax ihfaz mataaya wa ahli wal walad wadiatan indaka fi saadi samad. loolu si mbir maa ngi lay ñaan. samay patrimoine. mais lépp loo xam ne effet la. lépp loo xam ne njaboot la daal mu nekk ndénkaan. ma ne ko dénkee suñu borom. kon loolu day wax ne sëñ moom. yéen yàlla waxee ne may sàmm alxuraan ñoo xoos na koy sàmm mm-hmm. inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mm-hmm. noonu tamit la mbiri suñ bi demee mm-hmm. ndax photo yoo xam ne nii am na cent cent cinq ans cent cinq ans te dara sukk ci loolu jàpp nañ ne yomb am na ci bu baax jeer yi fi jaar ak yu bari yu mënoon a yàq la lu ne jaar na photo yoo xam ne nii ñu ko jëloon mille neuf cent dix-huit ba deux mille vingt-trois oto yi <laughs> ah, dara si ko mars la mars ngeen jotaat a a na ci mhm. lii firndeel ne sëriñ bi mhm. amoon na ko lépp mhm. moo ko dencaloon boppam léppam yàlla na ko ñoŋal léppam yàlla na ko ñoŋal ci ak yàq ba ak yàq mënut daal wallaahi lu wér la loo xam ne nii bokk na ci kéemaan bi gën a rëy la ci gën a la ci gën a fës na comme jàngat sama mooy bi ci jotee dañuy def benn cérémonie de réception à l'ambassade du Sénégal ngir moom ko adduna bi ñu invité woon ci ay kilifa yu mag ambassade yi yëpp ñëwoon nañu Arabie Saoudite Maroc. Mhm. Tunisie. Mhm. Mhm. Euh, République Mosquée Paris. kon mujj na am dimension internationale. am dimension internationale. maanaam tubaab yi dafa mel ne. gëdd bi ñu ko jox sax. Mhm. Mhm. Mhm. parce que dañoo xam valeur valeur patrimoine. dañoo xam valeur patrimoine maanaam gëdd bi ñu ko jox ñoom koo ci woo rek lay yàggal di sawar. bu defee presse internationale bi ñëpp ñëw. TV5 RFI Jeune Afrique. nga xam daal mbir na moom da mu jëm. nga ne lii daal daf mel dafa suñ bi moo ci wane boppam. moo ci wane boppam. waaw am beneen dimension. parce que daa ñëw ngir gën a xamale waat. waaw daa ñëw ngir gën a xamale sëñ bi. surtout jamono ji ñu toll. mu gën a crise boo xam ne parce que ñëpp a ngi jàmbat. Mhm. nit bëgg jàmm. Mhm. mu mel ne message Serigne Touba. Mhm. mooy message bi nga xam ne moom la ëpp na soxla. pour mën a am jàmm. gis naa ko ci wax sax bon le sourire d'Amadou Bamba. waaw mu nekk mooy euh, mooy Samsidine. mooy euh, recteur de Paris. ndeysaan Mouhamed Hafiz. mooy mooy recteur de la grande mosquée de Paris. moo def intervention dimension bu am. jéggal jéggal. ndeysaan mu tooñ la wala mu jéggal. boobu dimension boobu. wax na ne bokk na ci ñu war a jàngat sëñ bi mhm, mhm. ak lépp lu mën a xew rek mhm. ak en toute circonstance sëñ bi day garder sourire am nekk de de de bonté waaye tam de bienveillance waaye na sëñ bi ngi moom daa gis foto bi rek jàngat ci loolu kon loolu lépp day waaj rek sëñ bi moom xam dëgg la yàlla moo xam dëgg la te bu gës suñu dem jot na mm-hmm. a gës suñu réew yaakaar naa parce que jërëjëf Cheikh Amadou Fadal Sëriñ Abdou di boroom xam-xam di jàmbaar di gëstukat bu mag boo xam ne fii la jàngee ci ndawi dëkk bi di nga xam ne ay jàngkat lañ waaye bañ jàngee ba noppi ñu ngi jéem a dundal euh, diine ji jéem a xam ne sëñ bi di ko def ci anam gu am solo ndax liñ doon wax rek ci tàmbali bi solos photo lii rek wane na ko day mel ne photo bi euh, déclic la pour ñu gën a internationaliser sëñ bi mm-hmm. boo gisee cérémonie de réception boobu ko ko mën a seetaan mm-hmm. boo ko tàppee dana am solo ndax ñi wax recteur université recteur euh, grande mosquée de Paris mm-hmm. ak yeneen ambassadeurs yi fa teew yooyu yëpp di gën a jox ne photo bi ngir gën koo xamle bu baax kon yàlla yàlla nangu jéego yi ngeen ci def lépp ci a fexe mboroom sëñ bi ci mbindam mm. ci lu bokk ci moom ak lépp loo xam ne aju na ci moom ndax ni mu ko waxee rek xam gi xam photo yi rek tax na ñeen ñi gën a xamaa eh, sëñ bu baax a baax kon waa MK TV ñu ngi lay ñu ngi leen di gërëm yéen waa bi ci liggéey bu am solo bi di wax ne fii seen kër la saa yu ngeen amee lu ngeen di eh, leeral rek eh, mën ngeen a ñëw incha allah di gërëm mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon teewlu mm. di ñaanal Cheikh Mouhamadou taxaa suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di leen jox dig daje incha allah ci yeneen jotaay tey jotaay bi moo doonoon xamle lan moo aju ci nataal yooyu nga xam ne génn na te ñii doon laam-laamee ne sëriñ bi la am du sëriñ bi ñu indi koo xam ne nag bokk na ci ci yoon wi bokk ci euh, gëstukat yi di borom xam boo xam ne gis na photo yi gis na liggéey bi mu ci def bu ko defee yaakaar naa kàddu yi mu ci wax koo képp ku ko dégg da ci mën a jariñu bu baax te xëy na man boog man duma ci laam-laamee dara ndax wóolu naa ne lépp lu mu wax ne sëriñ bi la ndax sëriñ bi rek ko ñor sëtub sëriñ bi la du wax loo du waxal dara loo xamante ni Euh, luy gàkkal sëriñ bi la amu ci benn intérêt kon moo tax loolu lay wane ne rek jotaay bi kon amoon na solo bu baax ñu ngi leen jox dëgg dëgg incha allah beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa akrim bihi rabba